asalaamaaleykum amee internet jële bi amaan mbégte ak contentement bu baax a baax a baax jàkkaarloo waat ak yéen nuyu nañ kilifa diine nuyu kilifa aada nuyu njabootu làmb yëpp dinañ dem ba ci hôpital yi di wax ñu fa tëdd yàlla yàlla fëgg seen bopp waaye duñu fàtte sam ñi nga xamante ne ñoo nekk ci prison yi di leen ñaanal bu baax a baax a baax ñëpp ñu génn fa te leen fa dugaloon ñu bañ cee delluwaat waaye duñu fàtte tam di ñaanalaat bu baax a baax ñi nga xamante ne ñoo génn àddina di leen wax yàlla na leen yàlla yërëm taxari leen àjjana ñu jëm nag ci bis bu rëy muy le 18 mai ñu ànd ci jibi Pogba à la structure de Teranga production waaye nag combat ci biir combat ndax grand combat bi mu ngi war a dox ci diggante Albouri ak Jara 2 Souley Gaynde ak ki nga xamante ne mooy Kirikou dinañ fa daje waaye na combat tam ci biir combat combat xale muy ki nga xamante ne Yaroba ak ki nga xamante ne mooy abu Zeyna mbër Abou nag mi ngi waaj ay mbokkam ñu seet si woon ki nga xamante ne mooy baax dañ koy jox mu nuyoo su nuyoo par ñu tàmbali li nga xamante ne mooy question yi Yaroba oy ñu ngi lay fay waa di di nuyu fii nga ñu fekk Bentali Biscuiterie waa di nuyu tamit gars yi nga ñu fekkal boo yi nii waa di nuyu waa Bentali ñaatali Grand Dakar yëpp waa surtout nag fii nga ñu fekk nii nante yi ñu ngi leen di béggee bu baax di leen nuyu di leen jox seen wàccuwaay parce que amuñu lu dul ñoom waaw ñoom ñoo jàpp suñuy mbir dañu sonnal di ñu defal lépp te joxuñu leen dara yaakaaruñ si ñun dara tamit bëgguñu te yàlla tax rek di ñu waaw di nuyu gannaaw loolu di nuyu nag sama sëriñ sëriñ Fall boroom ndigal bu baax a baax maa ngi koy nuyu di ko siyaar waaw di ko jox wàccu waayam bu baax a baax di nuyu képp koy Baye Fall di nuyu Baye Fall it waaw di nuyu waa kër waa kër maam Laay waaw di nuyu nuyu nag suñu waa dëkk waa nangal ma njëbeen waaw di nuyu sam papa yëpp di nuyu waa foof waaw di nuyu boo yëpp daal waa Puna ba sama booy nekk foofu waa Puna ba maa leen di nuyu bu baax di ko teg ci loxo Baye Sall Mbaye booy waaw lu jaaxal jaalaleel ko ci yeneen gaa yëpp waaw. question ma la njëkk laaj mooy lan moo a dugal ci làmb. waa làmb bëgg-bëgg rek moo ñu si dugal nag. waaw nekkul question que ne dañoo gis nit ñi ne si ñu dugg si nekkul question que ne dañoo gis ne dañ koo bëgg te yàlla tax te gis na yëfi góor la góor a koy def te ay góor lañ moo tax ñu dugg si mënoon nañoo dem nekk si leneen waaw mais moo tax ñu ñëw dugg si làmb bëgg ko gëm ko dugg ñu si nag pour ñu ngi si. wala ñu dugg si pour comme image yi nii di ñu jël ñuy wax ak yooy dañ see dugg pour teral si suñuy waajur dañ see dugg pour teral si ni ñu bëgg parce que dugg ñu si ndaxi caaxaan boo ko déggee mooy yabuñu ni ñuy topp nii di ñu topp nii di ñu tàgg bi di ñu defaral ay tiset yabuñu leen waaw kon tey lépp luñ gis ci ñun ci làmb dañ leen ko war di andil waaw te combat bii xam nañ liñ si bëgg xam nañ li booy bëgg te liñ bëgg rek laa leen di andil incha allah. non bii mooy sama deuxième combat waaw premier combat bi dama ñëw am nu mu demee ñu gagné ma par avertissement kon xam nga ne bii waruma ñëw sax di yàggal di bëri ay sortie de libéré yooyu damay ñëw defeere comme ni mu war a amee lay demee barki sëñ Bamba Abou maa ngi koy wax ne ko am na combat nekkul man lay bëreel de mu ngi bëreeg nante dama xam ne man xale laa. te moom mag la te xale la yàlla faral te xale lu mu dugg da see war a génn. bu fekkee yow foo teg moom mag la. moom mag la xam naa ko mais moom xamuma xam naa ko Grand Médine bu baax a baax baax. yéen ñaar ñëpp moom tam nee na xam ko. non ci sóob rek. Eh, bala moo xam ne xamuma arbitre génn suñu diggante booba lay xam ne xamuma wóor na sëñ Touba bu arbitre génnee suñu diggante boobu lay xam ne moom xamuma sax waaw. mais ma seeti ko mu ne ma carrément moom combat bi da koo jaral. ndax bo xolé bi mooy première fois mu dugg fële nga xamantene moy arena nationale combat bi da ko jar lol te combat bi mom moko gëna soxla. man la gëna jaral nak parce que gis nga ñi nga ma fekk. gëna jaral fuf, barki Serigne Touba te niko ñi bëggé ni la ko suma wa dëkk bëggé wa Ndangal ma wa Pono bo non lañ ko bëggé barki Serigne Touba lu ko jaral ben jaral na fuku fukk barki Serigne salim mbake bëre ba suñ dag sax jaral na nopp yi dagg wadd ca estaad ba yàlla xam na comprendre sax baat bu albi génn suñu diggante bu arbitre génnee suñu diggante dinaa daw fekk la fa nga taxaw ma wax la combat bi ma jaral ak lim fi ma ko teg maa man ah combat bi mi ngi ya dañ koy mu daan si barki Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kii duñu moromam duñu ñu am barki alxuraan yokkal doole doole ñoo mën laa la fuuf wax billaay wallaay tallaay mbëra eh, eh. ñoo mën fuuf laa wax bu nga téye la def alliance roo kop mais mafia grand mafia bi ñoom ñu ngi waaj ak doole eh dañuy xaar de grand Dakar ñaar télé benn télé bi si tër ala sama eh raa Sambouré man maa ngi nii man maa jox xoolal waaye yow déggoo xoolal si gars yi ñam ñam ko jox maa ngi nii eh maa ngi ñam ñam laa la wax yow wala yow dama ko jox billaay walaay tallaay ay nii mbër eh. doo xool doo xool yow ay taw rek mbër yow leesane liggéeyal rek boo liggéeyee amul jaxle ñooy sa ginnaaw billaay walaay mais yow nga fi mu ne ni mafia bi wër la nga toog at bi sifle génn seen diggante ñeme ngaa samp jaaga xeex ak ki nga xamante ne mooy Abou Zeyna. ñi ay góor lañ. ñii nii baay ñii nii baay ay góor lañ ñun fii nga ñu fekk sax dañ fay faay dañuy xeex eh. barke alxuraan man xool man damay raag ñoom de après ñu àndaat yàlla xam na ko ñun raag dawul suñu yaram barke Serigne Touba. raag ak tëdd nelaw mu ñuy jot nga xam ne dara dawatul lañ yemale. arbitre nga samp jaaga xeex. waaw bu ak man naa ko dóor ba yéeg ko daw dóoraale caméraman yi ne suñ ginnaaw yëpp. Eh, eh, bu ñu si dóoraale ñun tamit. man damaa soxla. damaa soxla de. yàlla xam na ko. lenn laay ñaan lenn rek laay ñaan bu arbitre génnee suñu diggante ah moom na taxaw dëggal boppam. moom nee na du arrière day taxaw dëggal boppam yow rek lay mais moom nee na taxaw dëggal boppam ngeen xeex. bu arrière ma yàq bëtëb goos bi wër na sëñ Tuubaa bu ma yàq bët bi dama koy duma duma yu métti maa ko man maa ko ëpp doole moom ñemewul taxaw sax. moom nee na day taxaw saay man bu ma la tiimee amoo si man sens. parce que nee naa ko faar dina am ku taxawul tamit dinaa génnewaat taxaw yéen ñaan ñëpp jëli naa leen. ma ne la moom bu taxawee yàlla xam na ne seen nii euh, nii ñii tafaate nit ñi ñoo ko yóbbu mu ñibbi. bu taxawee dinaa ko duma ba yëg ko bët yëpp laay yàq. waaye yow man dama am lu may def ak boo yooy maa ko man bu ma ko jàppee dama koy duma. man dafa am lu ma soxla te nekkul ay booy ndaw ndawaan yooyu ñoo ma koy lii waaw dafa am dafa am ñu ma gis ñoo xam ne ñu ngi ci làmb caméra yi di leen wër ñuy wax rata te ma xam ne duñu ay mbër ah. te ñooñ noonu pour ma àgg si ñoom wan leen exploité leen wane leen il ma am fulla si li may def surtout combat bi waaw ma ne ko moom Abu Zeyna xooma moom dawul dara waaw daw dara kenn xamu ko fenn waaw kenn xamu ko fenn te bu naa boo xam ne le 18 incha allah bu dee day dina daw génn saako yi. moom day dëggal boppam nee na seen mbër mooy day daw moom moom mooy saako yi lu ko war si combat bi mi ngi def mi ngi entraîné ñetti séance suba guddi ngoon fajar matinal lépp mi ngi koy jox war waaw mi ngi dóor waaram waaw waaw ñu koy ñaanal nag yàlla may ndam si barke Seydina ma ba le 18 incha allah. waaw salaamaaleykum mbooloo mi ah leen bëggee lu di wax kii nii quoi mooy ka ca gën a booy ndaw ñiy wax ay booy bu ndaw beeg ñi mais booy booy ndaw yooyu yëpp kii moo ci gën a ndaw ko kii xool ko jëlee ma kanamam bi ki boo kii est-ce que ki mocc la ko wax ni bu ñu ko jàppee le 18 kooku dañ koy 19 lañ koy xar ñun topp ñu waa Grand Médine ñun MGB lañ dëkk ñaata la Grand Dakar benn tali biscuiterie kooku buñ ko jàppee mu xam ne dawul dara eh kii doomu bool bool la ñu ngi woo nag waa Ndangal ma waa Lambaay waa Mbal mi waa Nguy ñëpp ñi leen woo waa Njee xombal bu kuy kuy doomu mbool mbool woo nañ la le 18. ñu ma jàppale ñu si kaw. waaw ndox booy bu ndaw bi day def Thiès. bilaa walaay. ah maanaam. ñooy sol lu weex def ndeyam lépp ma la su waay tamaate xam nga lu ma la wax ñooy sol lu weex def lépp ndey tamaate ñettal leen dëkk. maanaam kii nii. jour combat bi da dul sax daw. du doon sax minutes xam na kon ma ne suubaay kon nan la koy waxatee yoroo baax day def cause ah kon ba le 18. ñu ngi la wër bu at nga daw génn nga daw génn saako yi. ñun xamuñu daw ñun dañuy jàkkaarloog ñu gën a tàng ay booy barki ah. ah. Seydina Mohamed nañ ko def classico barki Seydina Mohamed buñ bëggee ñu def ko classico Grand Médine parcelle kaw ba suuf ñu jàppale ñu daje fii nii Liberté ñu gunge bi jaar Pikine tibb ci suuf si indaale. tam seetaan la da yooru rek. non yaay soob seetaanuma day sop seetaanuma bu dee dama yor buma ñewé dama door ma set guuy moom kay neena bo boo yoroo moom boo ñëwee moom booy sikkiwaal di nga walé ku bu dal ko manakam manakam man bu man di gëmmee nappatu ko ba japp ko eh. Seydina muhammad xam ne mako dooré day set guuy non man damay xale te dama dama génn comme nima la wax le 6 mars daw ma juum tay dama wara ñew ñëw one boy ne len man mbeur la amaana ñoom xam nañ ma amaana nag waa laa ma ñu kii ñoo ma xamul mais man dama war ñëw ma wane sama bopp wane ne man xale laa góor laa gaynde laa baay faal laa waruma daw man baay faal laa man taalibe borom ndigal laa matu man damel laa damel laa trans man duma ragal waaw te man góor yàlla laa gaynde laa ñafekat laa man Amari Ngoone Sabel Fall mooy sama maam eh. barki sëñ Fallou ak ca ngoone birima maawa damel ma sàmm taako yëpp samay maam lañ damel yëpp dama la koy limal bu ma daan la fa taxaw nga xam ne man du ma ngaaka ah, waaw le 18 mënul yomb nag di profité nag di woote fii nga ñu fekk bala maa woo ñeen damay woon nante yi nii nii man ñii laa am barke sëñ Touba waaw di di ko teg waaw maanaam kii nii kii nii waa hôpital da nga bu fi ñëwati maanaam na ko gert na la ki dafa am wala wa ay naxu problème mu dret waa hôpital na ko bi manana sa liberté fi bu fi ñëwee yow bo ñëwé tay sa xala jarul nga joy xaay dama ñu passement nga dem sa kon ay malo ay abu teyna borom ñaara tour yo noonu yëpp day xaar ñu eh mbër lañu wax de moom lay top nak bu la di inshallah gëna mala su wa di mo loolu noonu bu leen fekkee alayaadi ba de six boo bëggee sax ñu fekk la foofu te leen te bu ñu ko takkee lay gën a yoolew sax diggante eh. Pikine waaw mooy lool day daw rek waaw eh Abou Zeyna waaw Abou Zeyna jarul sax xoolal ngay yëg oto ñu seret lay tax ñëw seret lay tax ñëw seret lay tax ba Grand Médine day wàcc daw waaw coono jub. ayca woote comme comme comme ni la kii wax ñun man la suñu waay ñun ñun ñun ñun matu ñun deret ak boisson bi ñuy naan la ñu yemale ñun ni ñuy gisee ndox mi sase sibeel yi noonu la ñuy gisee deret ñun ragaluñ deret Mbacke bu bëggee bu jour ba man pare naa pour maye paanu deret ñu yóbbul ko waa hôpital yi ñu ràmbali leen ko ñu ko feebar barki Seydina Muhammad bu bëggee man na ma nam ma pare naa ndax naa am nag waaw ñun duñ naan meew sax ñun bëgguñu lu yomb duñ ay kàppet ñun duñ naan ñun yu tàng yooyu la ñuy naan eh. ñun duñ naan meew waaw comme lu ma la wax nag di woo fii nga ñu fekk nante yi nante yi bentali fii biscuiterie di woo waa Taïba ah di woo waa Grand Dakar yëpp waa ale boobu noonu ñëpp ñu ngi leen di woo barki sëñ waa di woo booy yi fii ngalaw waa PC gaa yëpp ñu ngi leen di woo waa Fora ah ñu ngi wootee woo ñëpp bàyyi ñu kenn asalem un asalem waaw kasoor ñëpp ñu ngi leen di woo di leen woo ñu jàppale ñun te xam ne ñun ay ndaw lañ rek yoo xam ne dañ nekk ci benn affaire yàlla nattuñu si kon tey bu ñuy dem dañu war a mën a gunge dooleel ñu jàppale ñu di woote nag suñu waa dëkk village ba nangal ma di wo wa nang yëpp ak liko wër njobeen taleñ waaw reefan fépp ñu ngi leen di wo lambay ak yaay ndondal di wa njaman wa dekk ak kaw ñëpp ñu ngi leen di wo gaat kon papa yëpp ñu jàppale ma ci combat bi wa di wax nga ne sama papa xaar maa kay nuyu ñaanal jamm barki Serigne Touba daf ma wofu kenn wu jox ma xaalis bu bare bare bare ci combat bi yalla xam ko suñ sama mam dajé ñaanal ma di woo suñ ministre bi ministre Mor Ngom di ko woo mu jàppale ñu parce que booy ñu ngi foofu jeudi la ñuy bëre booy dañuy jàng mais kenn du dem école yi dañ koy tëj bala ñu faa mercredi la ñuy tëj école ba ba vendredi vendredi bu vendredi bu ñu fa demee sax dañuy simulé lundi nag bu ñëwee buñ ñu dee jàng bu maître yi joxe cours ñu joxe bu ñu joxe wul ñu continuer feetu rek waa di woo ministre Mor Ngom Mbaye Ndiaye di woo nag Abdoulaye Diouf Sarr waa di woo Diouf Sarr junior waa di ko wax ni ko mu wax Abdoulaye Diouf Sarr mu jàpp si combat bi ak doomam honorable ah honorable Amia di ko wax mu jàpp si combat bi di woo mbay Ndiaye di woo Mass Colobane di sant nag fii nga ma fekk Mambay Mambay day sonn si ñun barki Serigne Touba di ñu defal lépp lépp lépp yàlla xam na ko tey sonn ñu fii dara di sant sama benn grand Aliou moom xaalis bu bari la ma yónnee waaw ko sama waay la moo yor samay bagage sax di woo Mass Colobane mu jàpp si combat bi Ibou Ngom maa ngi koy woo mu jàpp si combat bi waa Asalem maa leen di woo ñu jàpp si combat bi ñoom Laat Maas mafia bi fii nii ñoom Ngaskel Dame Awa Silla ah ñoom Khady Faye Olay ñoom ñëpp maa leen di nuyu di leen siyaar Moussa Moussa tamit mooy loolu sama waay la day soom samay mbir waaw di woo waa Bentali yëpp nag ñu jàppale ñu dooleel ñu kàttanal ñu waaw yàlla suturaal ñu dem si bés bi yàlla defal ñu si ndam ñun ñëw.